bu ngeen ko gisee ngeen woor bu ngeen ko gisee ngeen dog su ngeen ko gisul ngeen mottali fanweer séentu nañ ko démb gisuñu ko fenn fenn fenn saxul ne fenn gis nañ ko fa te biir dëkk bi ak li génn dëkk bi lépp nga xam ni bu ñu amee ndigalul woor maanaam um tey suba it ci loolu la tege ndax ndigali ndigalul yàlla ba noppi sëñ bi moom dafa yor kàddu gi di leeral mu ngi mel ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ndigalul yàlla rek la indi di leeral waaye andiwul yëfi boppam sëriñ bi diglewul yëfi boppam li muy digle lépp euh, ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndigalul kon tey moo sax ci alquran ak ci sunna ak ci dëggalu sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa itam euh, daf ñu daan wax ni na ngeen mu fi bëgg a jóge dafa wax ni na ngeen folli seeni nopp te fal seeni bët maa ngi dem bàyyi leen ak seen coow lu weer waaye na ngeen folli bu boobaa na ngeen folli seen i seen i bët ndax booba xam na jamono ji ndax li ëpp ci nit jamono ji li ëpp ci nit jamono ji eh, lu ñu yàlla mën nañoo wax loo xam ne lii mm, bu dee ci wàllu àddina gi mën nañ ko wala wàllu diine mën nañ ko kon nag loolu tax mu ne na ngeen folli seen i nopp defal seen bët kon gudd gu njëkk gi doon tey suba di kumtali moom moo sax ci ndigalu sunu boroom ci noonu moo sax ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi moo sax ci ndigalu Sëriñ Tuubaa kon ñu xam ne tey la guddi gu njëkk gi bu ko defee nag guddi gii nag ci ngay fas yéene euh, euh, umu weer weer wi yëpp yàlla tax ci guddi gii rek nga koy fase fas yéene woor weer wi ngir jëmmi sunu borom bu ko defee nag ndigal euh, yéene jooju moo continué ba weer wi dee dogam talut bu ñuy yeesal nekku ci xanaa nga am ngante ba dog waaye bu fekkee lu doggantalut amul lu ñuy yeesal ndax saa soo dogee it yaa nga yaa nga fannoo woor suba kon yéene ji jenn ji rek la ba weer wi dee bu fekkee nag da nga am ngant ba ba dog kooku rek kon bala ngaa bala ngaa jëlaat da nga koy yee da nga koy yéenewaat fas yéene mottali li des ci weer wi da nga koy waat waaye bu fekkente ni eh, ngante amut dogoo defoo dara kon kooku moom yéene ju njëkk rek mooy kon ne ndax waxtu ne mi nga ànd mi nga ànd yow waaw bu ko defee nag kon bu ñu ko xamee noonu ñu am pas-pasub bu ñu ko yéene ba doon ñu am pas-pasub wéeru ko doxale ko noonu ba weer wi dee yàlla nañu ci yàlla dimbale kenn ku nekk koor nag du cagee ni bàyyi lekk ak bàyyi naan rek ndax Sëñ Tuubaa nee na am na ko ànd ak woorkat yee woor te amul sa koor ga lu dul ab xiif waaw dafa fekk ne dafa bàyyi lekk ak naan te cër yi wóoruñu koor cër yëpp dañuy woor làmmiñ day woor tànk day woor loxo day woor nopp day woor bët day woor kenn ku ci nekk day woor ci def lañ ko tere nga xam ne lañ ko tere dana fexe ba du ko def googu koor mooy gi nga xam ne moom lañ soxla mooy ànd mooy taxit mu koor ga dëggu ci xol bi waaye bu fekkee dana bàyyi ga lekk ak naan képp te ci yi benn bu ci nekk la mu war a ba bawoo ko bawu ko yow wóoroo wóor nga nag ci fiq fuqaaw yom bu ñu dañ naan woor nga yow waaye nag xaqiqatan wóoroo loolu tax Sëriñ Tuubaa ne bari na koy woor te bu bu dogee xiif ak mar rek la am ci koor ga ndax la ko def mooy cër yi dañoo wóorut kon kenn ku nekk na nga fas yéene ni nga bàyyee lekk naan nga woore nga woor leen cer yi yëpp wala kenn dugal ci wax lu dul noona wala kenn dugal ci dox lu dul noona wala kenn dugal ci laal lu dul noona wala kenn dugal ci xool lu dul noona wala kenn dugal ci déglu lu dul noona boo toogee fi barab ñuy dégg ñuy wax loo xam ne du noona sax jógal dem su nit dañoo wax ne su la nit ne. mi ngi ñëw waaye loo xamante ne lii du noonu bëgg la koo waxaloo wala mu waxalab safaan nga war a fay da ko naan inni sa imun man damaa woor loolu sallallahu alayhi wasallam digle su la nit waxee loo xam ne du noona wala mu bëgg la koo waxaloo wala mu bëgg laa dugal ci mbir inni sa imun man damaa woor nee na loolu mooy tontul ko woor bismillah kon sëriñ bi bismillah